xaaral ah, Mbaye Sy. waaw Mbaye Sy ma ne ko dugalati nga bii de. waaw nag dafa dogal. Hmm. mooy sama jam dafa ñëw. dëgg la. ci mariage bi. ah tey daal doo ko jëm xaaral nag ci samay dégg samay dégg. ma di xamal ni. ku ma naw la. ma bëgg sax parce que wax ni. ku ma bokkal. soo mi xam na ne wax. bàyyiwuma kenn nag. si moom a ci gën a tracé boobu xam naa ko. mbay si mii ngay gis nii. bu hmm. sama cent franc muy lekk bu weesoo liggéey ñu fay ko bu suma soxla ci dara jàmbaar ko naa ko ci bëgg ndayam góorgóorlu bu fay rakam ñeme dépense ñeme def tooñu ak dignité bay si ñàkkul fayda bay si lambar lewul lambar lewul demul fenn dem kër gi non non donc c'est un homme de valeur tey jot na ma wax kan mooy Mbaye Sy Mbaye na nga gudd fan nan daan gii nag da nga xam ne bàyyi nga fi cër nga fi cousin nga am nga fi cër billaahi wallaahi wataalaahi ñëw naa laa dénk am daal taxaw ngay di la seet te xam naa ne doo ko yàq di nga defal yàlla nga gudd fan tey lan ngay wax sa ne na ko ah. Salimata Gueye sax gis nañu teraanga bi nga xam moom it waaw mais monsieur nañ ministre def na li ko war parce que gouvernement noonu lay dox et eh bien que su su su su su ku nekk fi nga war a jaar di nga fa jaar parce que ku ci nekk ñoom yaa ngi ca wàllaa ba nga war a nekk te yaa ngi gis sa bopp di ni nga war a gisee kon monsieur le ministre merci beaucoup mais tey loo yëg am doom tuddee ko sa waajur bu jigéen di maman Kiné nga xam ne jaar ngeen fu ne dem nga ba ne sa complice la waaw dem ba ne sa lépp la lan nga am naa contentement parce que man euh, su ma amoon cent doom cent doomi góor su ma ko amoon ñëpp yeneen ci bi lañu ñëpp rasulilah laa ko nijaay du tonton du xarit du kenn du du dama xeeb kenn de waaye sama papa moo ñu moom lu mu jur yeneen bi la ko tuddee man maa jarax waali Ibrahima waali donc man lépp lu ma jur ci sama kattan bu dee góor yonent bi lay tuddee yàlla dogal nag muy doom bu jigéen ma xam ne nag am naa chance yàlla may na ma chance ma tuddee ko sama yaay. ban message ngay jox madame ndax ñëpp nee nañ daal koor la yow di borom këram yaa ngi taxaw da ngay confirmer loolu wala. mais sama jabar raw raw na dalin koor yow. d'accord yaa may tooñ yow. madame raw na ko xale bu yaru la. wax naa leen sama doom la. sama jabar la waaye sama doom la may bàyyam. may bàyyi waaw xale bu yaru la xale bu mën a muñ la muñ def lu ne ah moo tax nag dina fi am lu ne waaw parce yaa fu te doxul nag daal daal booy la jël bal la ñu tuuti. waaw ñu jëm seen lool bal la ñu tuuti dañu waxoon ne. maman Dia ñun ñett maanaam ñun ñett. waaw déglu leen rek dina leen tëral waaw dafa am charte bu ñu tëraloo. dañ ko bëgg a respecté. suñu moom dafa dogal. alors. waaw. waaw léegi. xam lu bëgg lu bëgg. bal xaali xaali xaali kaay xaali bàllal ma bàllal ma xaali